A'udzu billahi mina sheytaani rajim Bismillahirrahmanirrahim. rahmaani rahim asalaamaaleykum taala wabarakatuh. mbokki murid yi ñoo ngi leen di nuyu gën gi nuyo bu baax te di leen siaré. Tay ji ñi ngi waat fi ci jannatu su juróomeelu fanu koor Fi nga xamanteni moy keurup Cheikh Ibra gi di keur Seigne Amdi Fall mom Seigne Modou Menda. Yalla fi yag lool te wér yéen ñi nga xamanteni ni suivre saa su nekk seen comme ni ni mi doxé saa su nekk nga xamni fi fii juggé dem ba Touba noonu tamit lay amee ñoo xamante ni daanañu bawoo fii bis bu jot jëm njaareem nga xam ne ndogu yi jëm Touba lu ko jege dana dem fi nga xamante ni mooy njaareem fa yéene ànd ak njiit li nga xamante ni moom la ñu jiiteel mooy sëñ Jiili Fall sëñ Ablaye Fall moom sëñ Modou Aminta nga xamante ni mooy ànd ak taalibe yi yóbbu ndog yi fi nga xamante ni mooy njaareem ñu fas yéene ànd ak moom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 ilaha illallah la ilaha illallah fa la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah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 la kon nee ñu ngi nuyu murit yi ci suñ turu kilifa yi toog jëwriñ ji nag di jëwriñu kër gi sëriñ seex Fall moom Cheikh Modou Moustapha ñu gën koo xam ci sëriñ seex njaayu Mbeng moom mi nga xam ni moom la jëwriñu seex Ibra Fall ji def muy jëwriñam moom itam mu faboon kàddu yi jox ko suñ nijaay jii di jëwriñ ji di Cheikh Saliou Fall Serigne Saliou Fat Saw ñu dellu rekk di ñaan suñu borom nag mu bokk yàggal seenu dund ñoom ñii waaye nag wéral leen leen nee dafa am kàddu yoo xam ni nag ñu dey nee daa bëggoon ñu bokk ko yëkkati ba ñépp dégg ko ndax liggéey bi ni liggéey fii kan koy teg ci ay loxoom nga xam ne jëwriñu Serigne Touba ja moo ko teg ci loxoom muy Cheikh Mouhamadul Mountakha ñoo ngi ñaan suñu borom mu yàggalal ñu ak dundam te wéral ko dafa yónnee ay kàddu ci ñoom wax ni liggéey bii di liggéeyum ndogu yi nee ci ak njalbeen bi fi jëwriñu Sëñ Touba ji di doog a toog Cheikh Mouhamadul Mountakha ñu ngi ñaan si mboroom mu yàggal ak dundam te wéral ko nee def leen woo ñoom waa kër ga joxleen leen dama bëgg ngeen taxawul ma weeru koor wi waaye ni ngeen tàmmee kàddoom mu di ko waxe Serigne Cheikh rek mu ne ko yow nag ca sa bokk yalaale féetaleel mooy Baay Faal yi ndax moom kat ab Baay Faal la koy dàkkantale nee ma yaakaaroon ni nag liggéey bi may taxawuloo liggéey bu woyof la danga koy def dem defi leneen waaye ndekk moom ëpp na ab liggéey sax moom nee nag mu leen di déggul nag ñoom kilifaam yii moom day fabul kilifteem gi féetewoo ko ñoom ñi la ko jox ndax bu ngeen déggee ni mu ko waxee dafa wax ni man de liggéey bii dama feeñ rekk fekk ko fi muy ndogu yi nee daa feeñ fekk fi liggéey bi mu ànd ceeg ñun nee ba mu fekkee ba tey nag dara mosu ci xayib mosul ñi guddi na mësul ni teel na la waraloon teel gi nee na jàngoro ji doxoon ci diggante bi muy jàngoro ji tàbbi woon ci réew mi rek tax nag ñu ko doon teelal xanaa moom nag far mu jaarate nag musta ab noflaay teel gi mu doon teel a ñëw ñu di ko teel a séddale dem defi waat leneen jàngoro ji jàll ñeen ñu sax ci loola kon ni mu ko waxe moom li dal murid yi rek lu mus mu neex ca terewun ko ko mu ne ca ba keroog ñu koy joxaan ndigal nee loolu daal moo ko ca bàyyiwoon waaye nee nag mu ngi tuubal kilifaam yii di leen xamal ni moom day doonul ci liggéey bi dara lu dul ñu indi ko teg ca loxoom mu seddale ko nee na kàddu yu rafet de yi la Serigne Cheikh Mbacke wax ci digganteem ak kilifaam yi ndax la gën a rafet ci kàddu ya mooy kàddu goom wax ni damaa feeñ fekk ko fi te dara mosu ci ayib lépp tege ci aw yoon nee kon nag li doxoon ci diggante bi muy jàngoro jooju ginnaaw jeex na te moo waraloon ñuy teelal ñoom ñii di ay kilifaam yore liggéey bi nee na kat nu ngeen ko bëggee ànd na ci ak yéen moo tax nag ni mu teel a tey da ci am ñoo xam ne dégguñu li sëriñ bi waxoon démb ndax bin laata noppi ba sëñ bi joxe kàddu yi dafa am ñoo xam ne yewe ko nan waaye nan ko waxe woon démb su juumul nee ñi ngi ni toog danoo waxoon ni ñeenti waxtu ak genn wàll liggéey bi ñëw fii ci biir mbaar mi juróomi waxtu ñu yenn ko yóbbu Touba jort na ni lool la kilifa yi waxoon nee kon la tax mu teel a noppi nii kon nee na layalul murid yi danoo jort ni dégg ga moo des waaye ginnaaw kee ñuy teg liggéey bi ci loxoom delloo na leen ko ñun tamit nu gën a noppal suñuy kilifa gën a yaatal liggéey bi loolu moo gën ci ñun. kon daal lan waxoon bu nu waxaatul leneen. kenn ku ne mën ngaa jàpp ni. ñeenti waxtu ak genn wàll. nan andi liggéey bi fii ci mbaar mi. juróomi waxtu jotee. ñu yenn ko yóbbu ba kër borom Touba. yooyu kàddu la ko sëriñ bi joxoon ni ko na ko wax ba ñépp dégg ko. noonu kat yaakaar na ni buñ ko ca bàyyi jub na de. ndax fi na juróomi waxtu faal jotugul jotagul nee na mbett mi daal fi ne kat naroon na noo def loo xam ni waajur yi duñ ñu ci mere waaye ñun ci suñ bopp kat nii ñu defe nu gënal ngeen ñëw teew seen bët tege ci liggéey bi tege ci mbooloo mi ku doon liggéey ñu soog a dem loolu moom bu ngànt amul moo gën ci ñun kon nañ doon bëgg a def baax na waaye daa mel ni nii a gën daa mel ni nii a gën ci ñun kon daal fal kàddu yaa ngoog Cheikh jëwriñ jaa ngi nii toog moo wax lu loolu loolu mu wax nag muy ndigal ci ñun yal nañ ko bokk mën a jëfe rek rafet nañ njortu lool nag ci ni dinañ ko man ca loolu lépp day waral rek liggéey bi gën a yaatu ci ñun. defaluñ ko seen bopp. ñi yor liggéey bi. ñooñu la ñuy yaatalal. yàkkali leen lool. ndax ndogu daal. bokkut ak añ bu teel. bokkut ak añ bu guddi. ndogu mën naa tàmbali li nga ni sii. ci ka ca ko koy togg. jëm jant bu sonak kon lii suñ kilifa yi xalaat. jub na lool fi ñun de murit yi nu ngi leen ñaan allahumma amin allah rayu yi comme niñ leen ko waxee woon ànd nañoo ak yéen jóge fee nga xamante ni mooy Touba Janatul Maxwa Kër Seera Faal ga ñëw fii nii nga xamante ni mooy njaareem fii nii mooy fi nga xamante ni moom la Cheikh Rafal gannaaw bi ko Serigne Touba joxe woon ndigal toggi ndogu fii la ko daa indi ñi ngi nii si buntu kër gu mag waa Touba ñëw indi ndogu yi ànd ànd ak si njiital ki nga xamante ni mooy sëñ Jili Fall moom Serigne Modou Aminta Fall ñi ngi nii nag indi nañ fi lu tolloog ñaar fukki bool ak juróom-benn wala ñaar fukki bool yi sax ak juróom-benn ak super moom la fi murid yi jugee Touba indi tey jii yam juróomi fan si weeru koor gi kon jërë ngeen jëf mbokk yi jaa ngeen jëf. فلا إله إلا الله فلا إله إلا الله فلا إله إلا الله فلا إله إلا الله La la ilaha ha la la la la la